jiwaalo daal su leen neexee seen affaire baax na bu leen neexul seen affaire baax na mawlidu woo azamul sëñ Bamba nee na Bamba ne mawlidu woo juddug yonent yàlla Muhammad mu azamun lu ñu màggal la mubarakun muxtaramul bamba ne yéen waa jawal faajut ci ngeen di màggal juddoom mubaarakun lu ñu barkeel la muxtaramun waaye lu ñu ormal la taabimu yan otimo yéen waa jawal sëñ bamba ne taadimuhu màggal juddug yonent yàlla muhammad yan xatimu lu war la ala zawi taxaddumi baayu cheikh abdul ahad mbakke ne ala zawi taxaddumi borom jiitu yaay waral màggal juddug rasulillah